bu ñu ko xoolee ndaw ñi manqué woon nañ fu ñu nekk di fa def seen activité kon je crois que ne avec salle bi yu si bëri danañ mën a décanter cette situation ñu ngi leen siy jaajëfal monsieur le maire bu baax a baax li la jaajëfal aussi le président de la république du Sénégal et l' du Sénégal ci seen taxawaay ba complexe bi mën a taxaw en partenariat avec la commune de Mbacké li ma si wax nag donc monsieur le maire donc yàlla nekk njiglaayu ndaw ñëpp li ngay wuti aussi yàlla na si yàlla may ndam bu nekkee sa njiglaay parce que ñun ay taalibe Serigne Touba lañ yaakaaruñ ku du Serigne Touba yaakaaruma ku du Serigne Touba fa ma jëm muy sama bàmmeel fii ci kaw suuf yaakaaruma fi kenn ku dul Serigne Touba. suñu amee lu mel nii ci commune Mbacké nag dafay nekk fierté nekk loo xamante ni ndaw ñi dañu am jëmukaay. donc li ma ciy wax di ci tëj samay kàddu mooy que ne caddu cant la di cant bureau conseil communal bi nga xam ne ñoom laa àndaloon doon liggéey ay ndaw yoo xamante ni vraiment suñu réussir ba am lu mel nii ñoom dañ cee bay seen tànk corps et âme pour que réussite bi mën a am kon ndaw ñooñu gàcce ngaalaama te yàlla def na ci suñu magistère la ñu amee lii aussi kon ak cant la parce que ay jeunes yàgg nañ fee jaar te mënuñu am mësuñu am réussite bi kon Abdou Mbacke Ndaw nekk jeune man ma nekk jeune yàlla tombé ñu am lii kon ak cant la dañ si cant suñu borom bu baax a baax mais mooy indi tuuti leeral di wax ne conseil communal de la jeunesse bépp ndaw bu nekk ci dëkk bi ak structure boo mën di jor conseil communal de la jeunesse mooy sa kilifa bépp ndaw boo structure boo mën di yor conseil communal de la jeunesse mooy sa kilifa Serigne May Seck demul élection conseil communal de la jeunesse parce que soxlawaatu ko du présenté wu waxoon naa ko dama koy waxaat kon édifice bi xale yi lañ ko defal ñoom ñu ñëw war a topp si ñun ñu nekk xale yoo war a dañ leen a war a encouragé war leen a jàppale sur tous les mois ba coono bi sëriñ may doon daj xale yooyu bañ koo daj te yaakaar naa ne loolu monsieur le maire xanaa dina si bay waaram bu baax a baax parce que jeune la te bëgg na lu baax ñi lay waxal ndax nit ki li sëriñ Abdoulaye Mbacke doon wax rek kaala ci njëkk ci ndigg lay njëkk su ñëwee ci bopp bopp xam kaala li muy jëriñ ndax àdduna lépp loo gis jàmbaar moo koy maye lépp loo gis fit moo koy mayee lépp loo gis jom moo koy mayee te Cheikh Ahmadou Bamba mi sunu yaakaar te ëllëg foofu la jaar ba yàlla may ko tey li mu am kon nag ñun ñëpp nag moom la war a roy moom la war a bàyyi xel ba lépp lu ñuy def rek nañ ko ci sóor xam ni ndam rek la ma sa bëgg lu baax la ma sa bëgg kon lu mel ni bu amee nañ ko yokk koo gën a ñaanal yokk gën koo sargal ndax lépp mooma lu mel ni nag man de yàgg naa Mbàkke waaye maa ngi koy soog a gis lu mel ni am taax taax moo xam ne am na dayoo ñu dubbee ko doomu Mbàkke muy dund fekke ko teewee ko nga xam ne taarif na ko jàpp man maa ngi koy soog a gis tey kon nag sant rek la ñuy def kon ñu lay gërëm bu baax Abdou Mbàkke Ndaw la maire le conseil municipal ñu ngi di gërëm def ngeen lu rëy def ngeen loo xam ne taarix dana ko jàpp def ngeen loo xam ne du fay def ngeen loo xam ne dangeen koo bind ngir ngiru dund ndax lii ñun ñëppay faatu bakkan day dem nul ne éternel sur cette terre parce que nous sommes par la finitude bornés dans le temps bornés dans l'espace nous allons ñun ñëpp dañuy maa ngi jégalu ñun ñëpp dañuy dem dem googu nag danañ fi bàyyi ay jëf jëf yu baax yi lii ci la bokk man dey dugg naa dans l'histoire comme li ko Jean Paul Sartre waxee j'ai enseveli la mort dans le linceul de la gloire ça veut moom dootul faatu ndax jàpp na ni turam des na ci àdduna man mi tamit de jàpp naa ni bis na ki tey dootuma faatu fi ne à jamais ndax taax mi moom may jëmmal kon loolu sant la kon monsieur le maire ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi ci pas-pas bi ci xel mu rafet mi ci gis-gis bu rëy bi ndax lii gis-gis la il n'est pas donné à n'importe qui de faire ça man dama xalaat ne lii kan moo ko xelal monsieur kan moo ko xalaat conseil conseil municipal kon mooy wane ni gis-gis bi rafet na gis-gis bi baax na kon ñu leen di sant di leen gërëm. di félicité Serigne May Seck président conseil communal de la jeunesse di félicité ki ñuy wax Mamoun mbay di président district di félicité Mamadou Ndiaye si mi nga xamante ni mooy président ODCAV di sant ñëpp di leen gërëm complexe communal de la jeunesse bi. mairie de Mbacké moo ko initié ci programme bi nga xam liggéeyal na ko 2014 ndax 2014 dañu liggéey lu ñuy wax PDC programme de développement communal ci biir PDC bi ñuy réaliser di réaliser ba agsi ci infrastructure bi moom lañu ñu réaliser nii war ko inauguré tey jébbal ko askan wi muy complexe boo xamante nii def nañ ci 69 millions 537 mille 260 équipement yi ciy dem nekk valeur u 2 millions 10 millions su paree lépp war a nekk valeur u 79 millions 537 mille 260 mille loolu di xaalisu waa Mbacké di xaalisu waa Mbacké moo tax ñu xool ci orientation yi xamante ni defoon nañu ko tey mu bii tey bokk ci orientation yi jëmale ci ndaw ñi ak njàng mi ñu def complexe bi nag am na ay bërëb yu bari ci nekk ci biir complexe bi te lépp ci ndaw ñi la delloo salle bi ñu nekk muy salle polyvalente bi gis ngeen c'est des salles climatisées ventilées sonorisation bi ciy dem matériel bi ñëw ne mi ngi ci kaw vidéo projecteur ak mboolem équipement yi nga xam ne dañu fiy am na table de missage am na ordinateur portable bu muy àndal tamit pour bu fekkee ëllëg dañ fiy def ay jàng ñu koy mën a utiliser bu ñu fiy def tamit leneen xawaare lu mën a doon ñu mën ko utiliser bu dee conférence de salle multifonctionnelle la. boo yëgee ci kaw am na benn bibliothèque numérique ñu koy wax bibliothèque intelligente bibliothèque intelligence boobu intelligente boobu ñu ko tuddee El Hadji Mousse Niang doonoon jàngalekat bu émérite fii ci Mbacké bibliothèque intelligente bi. ay livre lay am ak bureau bibliothécaire ak salle informatique